programme donc ñoom ñi ci réew yi ak Kawtef ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ñu ngi fii nag euh, présentement fii ci Castor comme image yi rek euh, ni ngeen ko gisee ay jàmbarloo moo fi xawoon am wante nag ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi HLM la salaamaaleykum internet Sénégo TV ak kawte ñu ngi ñu ngi fii ci Castor kooku moom dañ koo jàpp waaw ñu ngay dóor ñu fii nag ci Castor waaw ñu ngi fii nag ci Castor comme ni ngeen koy gisee nag jamono ji xale yi dañoo génnoon wante nag euh, ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi maîtriser nañ situation bi effet lacrymogène baat bi wax bi du neex noonu daal dema ah. béy di ñu ngi naan ne nañ dem policier yi bi ñëwee ba tey mayuñu jaam comme que am nañ image. dafa sa nañ dem bala ñoo sànni lacrymogène ñu dem waa baax na béy di ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi mayuñu sa fu ñu yëkkee suñu nàkk dañuy dañuy aay rek saa su ne ñu filmer ba fi ñu taxawoon rek dañoo mujj déplacé wu ndaxte dañu ne ñu arrêté li nga xam ne mooy filmer bi ñuy def ci lañ déplacé wu ñu ngi nii nag di jubal rond-point Castor fii nekk ci nga xam ne mu ngi noonu nag tey na liggéey bi moom du yomb parce que par stratégie daal la ñuy demee da policiers yi fu ñu taxaw rek man ak sama caméraman dañuy aay ñu filmer xam naa sûrement xamuñ les raisons mais nag ñoom tamit dañu nekk ci seen liggéey ñun tamit ñu nekk ci suñu liggéey compréhension war naa mën a am yaa ngi si kër gi. Thank you. non Patte d'Oie internet Senego TV ak Kawtef comme ni ngeen ko gisee rek fii aussi euh, marché Grand Yoff ñi nga xam ne ñooy jeunes yi nag commencé woon nañ génn di manifester mais dañ leen maîtriser vite fait rek mu ngi noonu mu ngi noonu commencé woon nañ di taal mais ak force de l'ordre yi dañu teel a génn maîtriser leen jamono ji nag ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkk ci Grand Yoff ñu ngi dox seeni soxla dem ak dikk bi ak njaay bi aussi mu ngi continuer tout le contraire fi nga xam ne moom lañ jógee sànq muy Castor ak HLM euh, H&M. déjà sa gis ngeen image bi jeune ñaari jeunes yi nga xam ne force de l'ordre yi ñoo leen téye rek di leen di file fil yu métti moom ngeen gis noonu sànq rekk ci vidéo bi mais nag fii nga xam ne mooy Grand Yoff bu nekkoon jeunes yi génn nañ jamono ji nag arrêté nañ euh, mu ngi noonu mooy mooy situation bi ñu continue xool euh, Patte d'Oie tamit lan moo fa am ngir fàttali leen nag jamono ji ñuy wax ak yéen kii di chefu leaderu patriot yi Ousmane Sonko placé nañ ko su mandat dépôt chef d'inculpation yi nga xam ne moom lañ koy toppee nag c'est pas encore défini moment bii ñuy defee vidéo bi mais it jàppalee ne rek élément déclencheur bi nekk na vol de téléphone ginnaaw ba mu euh, xëccee téléphone gendarme ba ko doon filmer à son insu ca këram ba cité kër góor gi àjjuma ca la coow li tàmbalee ñu def ko garde à vue ba tey nag ba mu janoo ko euh, juge Maham Diallo ci lañ ko placé sous sous mandat dépôt li nga xam ne mooy Toussaint Manga moom tamit placé nañ ko euh, garde à vue euh, ki nga xam ne aussi mooy Pape Alé Niang moom tamit daal dinañ ko déféré Eh, Ngagne Demba Touré moom nag nee na du wuyu li nga xam ne mooy convocation biñ ko biñ ko jox ndaxte it jàng na xam na it yoon na muy doxee kon am na it convocation nañ ko koy waxee rek moom du daal di nangu boobule convocation ba noonu sax nag eh, ci dimanche bi defoon na benn di wax jeunes yi nag seen leader nekk na en danger projet bi nekk na en danger wante te Ousmane Sonko bu duggee prison rek loolu dina doon danger bu rëy ngir seen projet bi nga xam ne mooy euh, PASTEF. ah fii nag Grand Yoff la ba tey dañuy taal rekk mu ngi noonu xale yi dañuy taal dañuy taal dem force de l'ordre yi jaaraat fi fay mu ngi nii mu mel ni eh, amul fii fii amul amul policier gisuñ fii eh, force de l'ordre boo xam ne seen nañ ko fi wante gis nañ ñu teg ay mbalit taal mais dafa mel ni cette fois-ci xale yi dañu changer stratégie parce que manifestation yi passé dañu doon gis ñu jàmbaarloo mu mel ni jamono ji xale yi dañu changer stratégie parce que manifestation yi passé da doon doon jàmbaarloo daw ak dàqante ak force de l'ordre yi mais bi passé ñoom dañuy ñëw rek daal di taal dem doo leen sa gis pour nga gis leen problème la naam bu nekkee it yu bëri euh, tëj na fii ci marché bi teewul it aussi sénégalais yi ñu ngi génn contrairement ak euh, événement yi passé kenn du génn kenn ñemewut a génn kenn aussi ñemewut a circuler mbaa nga doxi say soxla mais it eh, cantine jamono ji yu ci bëree bëree bëree bëri tëj na day firndeel rek li nga xam ne mooy beneen stratégie bu ñu teg daa mel ni cette fois ci ci mbirum koom la ñu gën a mën a eh, xale yi di xeexee ndaxte invité nañ ñenn ñi ñu banque seen yoxo ngir li nga xam ne mooy jaay ak jënd fii ak ay fan bu ñu ko def eh, fii ci Ndakaaru mais mouvement bi nag nekkul quartier yëpp ñoo ko suivre parce que HLM bi ñu jógee tout à ak Castor ñoom ñoom dañoo taxaw di jàkkaarloog di jàmbaarloog ak ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy force de l'ordre yi ba tey Grand Yoff lañ tollu ngeen di gis mu ngi noonu Grand Yoff euh, Liberté 6 le constat est même calme plat lañ fi gis voilà fii gisuñ fi benn mouvement boo xam ne amagum na fi fii ci rond-point Liberté 6 boutique yi ubbi na nit ñi ñu ngi dox di vaguer à leurs préoccupations fii nag deux voies liberté 6 yi la contrairement ak euh, rond-point liberté 6 fii xale yi dañu génn te it force de l'ordre yi mayuñ leen ko ndaxte gis nga BRT bi toj nañ vitre ya waaw vitre ya toj nañ leen fii yëpp mu ngi ñuul kukku ndaxte gaz lacrymogène yi nga xam ne sànni nañ ko fi xale yi nag ñu ngi taxaw ñu ngi noonu BRT bi nag ñu fàttali leen manifestation yi passé attaqué woon nañ ko ba travaux yi fi nekk vitre yu bari daal daal di nañ ko woon toj tey it noonu la fa demee ndaxte it gis ngeen sànq nañ leen wone vitre ya xale yi tojate nañ ko fi mu ngi ñuul kukku ndax lacrymogène yi ñu doon sànnante yi ñu sànni xale yi li ñuy seen dafa mel ni xale yi dañ fa taal tàkk-tàkk lay nuru mu ngi noonu kon saxaar siñ leen doon wax dafa mel ni du lacrymogène mais plutôt pneu yi nga xam ni xale yi dañ ko taal fii nag euh, ci travaux BRT bi la deux voies liberté 6 mais nag gisuñ fi benn force de l'ordre boo xam ne daal euh, ñëw na fii nga xam ne euh, fii lañ taxaw ni muy deux points liberté 6 ci ci BRT bi mu ngi noonu mu mel ni xale yi nag dañu changé comme niñ leen ko waxee tout depuis tout à l'heure stratégie ndax te it duñ leen gis dangay romb rek takk tàkk très rarement ngay gis ñu jàkkaarloo ak police yi wala force de l'ordre yi buñ ne très rarement ndaxte bu ñu demee fee nga xam ne moo nekkoon Castor foofu gis nañ xale yaa ngi taxaw force de l'ordre yi aussi di riposte par des grenades lacrymogènes amit xale buñ fa jàpp bu ñu bu doon jàll dóor nañ ko fa ay liif yu saf daal mais nag mu ngi noonu pëna la pëna lañ taal pëna lañ taal moo tax mu ñuulee noonu BRT bi la ñiy taal nag doo leen gis <laughs> da ngay gis rek li nga xam ne mooy pneu tàkk-tàkk yi mais ñiy taal moom doo doo leen gis. li ñu noté bi ci rond point bi lañ gis takk der mais biñ duggee ci deux voies deux voies yi fi BRT bi jaar bay ñëw ci rond point bi nii fa lañ jëm mais gisuñu takk der loolu lu ñu jaaxal la booy génn nañ taal pneu daw duggaat waaw. mais daal gisuñu gisuñu takk der loolu daal doy na waar waaw. mu mel ni kon dafay nuru genre ciblage dafa mel ni parce que it am na jeunes yoo xam ne dañuy gis takk der yi seen présence euh, dafay dafay dafay bëri dañuy gis police à côté nga dox benn quelques mètres aussi gis fa waa gendarmerie ñoom tamit ñu taxaw boo jëlee fi nga xam ne exemple mooy euh, Parcelles Assainies rond-point 26 force de l'ordre yi ñu ngi fa boo ja boo demee aussi mel ni kuy dem ci wuti si ses ci rond-point bi nga xam ne mooy rond-point Nord ba tamit di nga gis ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre désordre yi bëri nañ fa mais fii comme ni nga ko waxee effectivement euh, fii ci rond point euh, le liberté 6 deux voir liberté 6 BRT bi gisuñu fi pour le moment force de l'ordre mel na xale yi ñu ngi baare ñu ngi taal di dem seen yoon doo leen gis sax ndaxte romb nañ sànq pëne bi nga xam ne taal nañ ko romb nañ aussi gis fuy li nga xam ne moom lañu fi teg pour baare ay xeer it teg nañ ko li fii ci euh, deux voies JVC yi ngir mën a mën a fësal seen mer ginnaaw seen leader ba ñu ko jàppee teg ko loxo yóbbu ko prison di ni ndak li nga xam ne mooy chef inculpation moment bi ñuy wax ak yéen moom lañ ko war a toppee fii ci liberté mu mel ni kii moom yëgul yëgul yëgul yëgul lu xew yëgul lu xew mu ngi noonu barrage bi barrage yaa ngi noonu voilà ay xeer bare mooy stratégie bu bees bi rekk dañu changé xale yi dañu dañu changé ñu dem ñu dem nii xam même chose aussi ngay ngay ngay gisaat dañuy taal dem dañuy taal dem mu ngi noonu bu ñu prolongé aussi ci rond-point JVC bi même constat lañ fi gis bi pa xale yi dañuy taal dem pneu bi bañ ko taalee dafa mel ni yàggul ndaxte oto yaa ngi dow di ko di ko di ko jéggi mu ngi noonu bi dañu changé stratégie doonul face to face wala jàmbaloo ak force de l'ordre yi par contre dañuy ñëw taal dem baare aussi dem te doo leen sax gis comme ni ma leen ko waxee sànq mu ngi noonu du benn tàkk-tàkk beneen nit ñu ngi koy séenee teg ci it ay xeer yu ñu baare petite réaction ñi fi fekk jafe-jafe yi muy jur nag moo nekk embouteillage bu mu fiy ndaxte yoon yi non seulement dafay xat wante it oto yi du ñu xaarandi duñu xaarante ku ci nekk rek dangay ngay bëgg a dem parce que da ngay yaakaar ne les choses vont dégénérer eh, bay di lii daa mel ni cocktail cocktail la ndaxte butéel yi ñuy seen ci biir tàkk-tàkk bi loolu dafa mel ni bouteille cocktail ya génnaat na mu ngi noonu ba tey même chose. liberté ñu euh, angle bi liberté six côté bureau doré bi. waaw côté bureau côté bureau doré bi gis ngeen leen waaw ale bi jëm Sacré Cœur doy na waar.

lii day kaw. day yow. ko bu yor TikTok moom kon ngaa ko bu yor TikTok yéen a ngi gis ñun ñëpp teew nañ adduna bi ñëpp lépp ko bu yor TikTok moo mu ngi noonu Liberté 6 la Euh, fi mu toll nii na xale yi dañuy taal di dem doo fi fekk kenn koo xam ne dañ dafa taal mais ñoom daal dañuy taal rek daal di dem euh, li ko jëlee ci BRT bi ba nga xam ne euh, rond point ba ci koñ rond bi ñoom tamit même chose la tàkk-tàkk yi dañuy taal rek dem cette fois si nag pour le moment gisaguñ ñu sànni xeer gisaguñ ñu attaqué euh, li nga xam ne mooy quelque infrastructure wante ay taal la ñu jël taal bi nag même bu nekkee stratégie la am na ay gàllankoor ndaxte it euh, oto yi pour ñu jàll day métti dañuy obligé di contourner mbaa ñuy xool beneen voie euh, bu ñu mën a aw police a ngi ñëw police mu ngi mu ngi mu yegg si fii ci euh, Liberté 6 ba ñu ñëwee nag fi nga xam ne mooy euh, deux voies Liberté 6 ci BRT bi gisuñ woon seen présence ba ci rond point JVC bi après rond point JVC bi nag ci koñ yi ñu ngi nii di leen gis ñuy ñuy dugg si sûrement pour li nga fay tàkk-tàkk yi nga xam ne moo fi am xale yaa ngay commencé nag di daw ngi noonu yaa ngi noonu nag door a yegg si wàcc